naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a safoo TV ñu ngi leen di char dal leen ak jàmm Babacar maa ngi lay char maa ngi Abdou Babacar naka suba si bàyyi woo nga ci jàmm waa sant na yàlla bu baax a baax ah, macha allah macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax macha allah kon su ko defee ñu daal di dem seetaan revue daal di dikkaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 15 juillet 2021 dañuy ñëw ak yin ci likkaay suñu làmb tey xëtam mu njëkk lëm ca xëy fësal wala ña ca xëy fës bokk na ci Balla gay numéro 2 Modou Lo Bombardier ba ci Papa bu dee mbiru Balla Gaye numéro 2 nag yëglikaay bi daal dafa xëy tey ñëw jàpp na ne Balla dey juróomi arm a ngi yoo xam ne nii daal maanaam moo koy xaar ngir nag mu mën a maanaam jéem gañe ka nga xam ne moom moo di Bombardier yëglikaay bi nee na bu bëggee dégg dëgg arm yi nag bokk na ca li nga xam ne nii premier arme ba daal yëglikaay bi jàpp na ci wàllum bëree piir yëglikaay bi di sunu làmb moom moo gisee lu mel ni ki noonu ñaareel ba mooy maanaam mu bañ a tamit ragal dara wala moom Balla du ragal dara ñetteel ba mooy mu jéem a dirise la nga xam ne nii moom moo di jàkkaarloo ba quatrième ba waalaam tamit moom moo di wàllum mystique maanaam loolu daal yëglikaay bi jàpp na ko beneen ba ci des tamit wàllum ful tamit maanaam mbooloo maanaam cinq mbir la yoo xam ne daal wala juróomi mbir yoo xam ne daal a atu la ci Balla Gaye numéro ngir yoo xam ne bu ko defee mën naa génn ci làmb ja yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey ñëw kenn ki noonu ka nga xam ne nag moom la ko war a seqal muy Bombardier yëglikaay bi ñëw na ci dellu siwaat na ci moom ak itam mbir yoo xam ne nii yëglikaay bi jàpp na ne est-ce que lii warta tiital Balla Gaye wala boog maanaam daal mu def ci moom am xel ñaar parce que nag Bombardier daal jàpp na ne day bu bëggee dégg dëgg moom ci côté préparation ci wàllu mystique moom mu ngi ak 30 marabu yoo xam ne ni fi mu nekk nii ñoom ñépp ku ci ne assuré la nga ko ndam ci digganteem ak Balla Gaye numéro de moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal ndax lii du wàllu def wàllum xalaat ci ka nga xam ne moom moo di Balla gay numéro de ka nga xam ne nag xëy na di tontu ca mbir mooma moom moo di Badara di préparateur mystique wala boog Badara ma nga xam ne daal mooy préparé Sa ci wàllu mystique ne na day li am daal ñoom bu fekkente ne Bombardier ci ay marabu la compté nee na ñoom ci yàlla la ñu compté yëglikaay bi daal loolu la xëy tey wax nu ko keneen koo xam ne nii moom soo bëggee dégg-dégg am na ay défi yoo xam ne moo koy xaar muy Papa Sow le premier août digganteem ak Siteu yëglikaay bi ne day ay ñetti défi yoo xam ne ni daal yu bokkul la yoo xam ne daal mu ngi xaar Papa Sow ci combat bi nga xam ne nii ci la jëm digganteem ak nga xam ne moom moo di tarkindaa bi ba ca jëkk mooy jéem a réussir génn bu njëkk ci écréem ba nga xam ne moo di jàmbaar Wrestling Academy muy génn boo xam ne mu ngi koy jéem a génn ak mu ngi koy njëkk génn ak leneen loo xam tamit ñaareele mbir bi la maanaam jéem a am nag ndam muy lu njëkk ginnaaw juróom-ñetti yoo xam ne Papa Sow toog na ko te itam maanaam daal ndam amu ko ba ca des mooy jéem a tamit maanaam convaincre wala boog vaincre ña nga xam ne nii wala boog vaincre la nga xam ne ni daal moo di ak ñàkk déggu diggante ak waa Fass maanaam mbir moo xam ne daal bu ca amee ndam kon dina gën a leeral lu mel ni ki noonu sunu làmb moo xëy tey ñëw dikkal ñu ci yu mel ni ki noonu moom Papa Sow nag combat ba nga xam ne moom la seq ak Siteu ñu war koo bëri le premier août boo bëggee dégg dëgg yëglikaay bi ne na ko ca mbir ma maanaam di ko ca coow mel ni ki daal waa parcelle wala boog waa jàmm gën moom boo bëggee dégg dëgg wala boog moom Modou Lo daal combat booba aw na lool ñu ngi ko cay coow nii di ko ca coow bi di sunu làmb moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne yëg yëglikaay bi ñëw na ci muy beneen combat boo xam ne yëglikaay jotaay bi ndewenal la ko tudde muy war a am le 28 juillet que ko tëgg nag du kenn ku dul Serigne Modou Niang mu war a dox ci diggante Xaddaafi maanaam Duru Saane ak yëglikaay bi nag moom moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu benn xale ngi nii boo xam ne day yëglikaay bi ne mu yoo xam ne daal mu ngi ko tegale ci huit combat muy ka ne ni moom moo di Njaga Caam moom nag nee na pare na ngir jàkkaarloo ak Youssou Ndour ma nga xam ne moo nekk école de Balla Gaye wala Njaaytin rakki Tafaatin ndax itam ay ndamam fi mu nekk nii daal mu ngi ko tegalante di bëre di daan kenn koo xam ne nii moom am na ndam ba mu ko amee ba pare nag am na ñu mu sampal ndën muy caatu yarax ginnaaw ba mu daanee zal bawol ci ay seconde daal caatu caatu yarax daal la mu xëy xamle lenn la ne na li mu bëgg daal mooy ñu jox ko ka nga xam ne moo di zos ngir nag mu jàkkaarloo ak moom defante ak moom ba mu sab-sab keneen koo xam ne nii moom lamb la tëggoon démb fa nga xam ne moo doon ci arène nationale mu waroon dox ci diggante ka nga xam ne nii moom mooy armée bu ngéwél ak bébé daaru waaye combat ba nag dañ ko mujj annulé moo tax yëglikaay bi ne day soo bëggee dégg dëgg daal Mor Mbay boo sàgganee day ah maanaam daal li koy topp fi mu nekk wala li koy yoot boo bu ko xam dina bàyyi li muy yot ndax nag bokk na ci daal maanaam risque maanaam mu nga risque risque yoo xam ni daal yu rëy rëy rëy la bokk na ci daal retirer ay li nga xam ne ni moo di licence am wala boog suspendre ko wa maanaam loo ci mën a dégg daal moom Mor Mbaye fi mu nekk nii daal ah ay mbiram daal wala boog fa mu taxawee daal baaxul yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu ko buñ fa jógee dem les arènes dafa géey mi nga xam ne mooy deuxième tigre de Fass xëy na tamit dikkati ci Balla ak Bombardier di ci wax ne na ki nga xam ne nii day moom moo di Balla Gaye numéro 2 su ci kanamu Bombardier dina doon loo xam ne ni lu doy waar lay doon ci moom jàpp na nag Balla ak Bombardier moom dafa géey ne na mën a nekk komba boo xam ne bu ñuy bref lay doon boo xam ne bu gaaw lay doon ndax daa jàpp ne bu fekkente ne ñoom danoo xeex nee na ñoom ku ci jël sa coup morom nee na su keroogee day mën nga faa jaare lépp doxe fa tàgg tab bi géej parce que nag bu keroogee jàpp na ne loolu dana déstabiliser te bu keroogee fa ngay mujje mën naa bañ a neex jàpp na ne tamit kii di Bombardier moom Tapha Gueye dina amul lenn loo xam ne mu ngi koy ñàkk ci boobu combat Tapha Gueye daal moo gisee noonu keneen koo xam ne ni moom ab xolam daa sedd mu xëy di apprécier moom moo di Boy Kayre la mu xëy di apprécier nag moo di Bira Sène ak équipe bu CNC ba nga xam ne moom la Bira jiite Boy Kayre daal ne na équipe bu CNC bi fi nekk soo bëggee dégg dëgg bokkuñoog ña fi nekkoon ne Boy Kayre ne déedéet parce que nag jàpp na ne ñii moom seeni mbir moom nan kay doxale leer nan nañ te itam teg nañ ko ci yoon te ko wàcc yoon tamit dañ lay jubbanti duñ ca xaar-xaar bu yàgg moo tax Boy Kayre jàpp ne day loo ci mën a dégg daal équipe bu bira seen bi moom Boy Kayre daa mel ni xolam sedd na ci ñoom bu baax a baax a baax keneen koo xam ne buñ duggee ci biir les arènes dañ ko fay fekk muy ka nga xam ne ni moom moo di qualifié numéro 2 moom itam daa mel ni CNC booba fa la nga xam ne moo di ab recours am waaye recours ba nag ci digganteem ak général bu Fass daal daa mel ni recours ba bu mu génnee moom la mu atte mooy que ni qualifié numéro 2 bu Caaroy am na ndam ci kaw général bu Fass loolu yëglikaay bi moom moo xëy ñëw tey wax nu ko moom les arènes yëglikaay bi daal moo ñu ci lu mel ni ki noonu kenn koo xam ne nii moom yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom ak samedi jii nu jëm la muy préparé di le 17 juillet mooy jax jax daal ca Pout la nar a dem def fa nag la nga xam ne ni moom moo di lambi simple bébé bis mi tamit mu nga ñëw di indi ay leera ci diggante ak ka nga xam ne moo di papa booy jinne la taxoon mu mel ni koo xam ne daal d'accord ragal ba arbitre bi soufflé seen diggante ñu war a jàkkaarloo yëglikaay bi moom moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel mel ni ki noonu ba tey leneen loo xam ne nii CNC da koo def mooy ki nga xam ne moo di Ibou Ndiaye Obali ginnaaw bu ñu ko dégloo nag moom Ibou Ndiaye Obali daal démb te fa nga xam ne moo di ca seen ba daal maanaam fi mu nekk ni moom juróom benn weer yoo xam ne daal dañ ko koo daan yoo xam ne nag la moom lañ ko tegal moom Ibou Ndiaye Obali mel ni ki daal kon CNC moom fi mu nekk ni moom ku fi def loo xam ne daal dañoo jàpp ne dëppwul ak yoon moom dañ la koy wan ba nga gis ko keneen ñeneen ñoo xam ne tamit wan nañ leen ko ba sanctionné ni seen i mbër muy waa gën dal Cheikh Mbaba bébé julde ak njaaxum ak ñeneen ak ñeneen ñoom waaye ko li Cheikh Mbaba nag la leen naqari mooy nee nañ lan moo tax maanaam ñu sanctionné leen bàyyi Youssou Ndour ak waaye ko li Balla moo tax ñoom daal nee nañ mbir ma duñ ko bàyyi noonu mu sedd dugal nañ la nga xam ne ni moom moo di ab ñeneen ñoo xam ne ni wala keneen koo xam ne ni moom ay sanction mu koy yoot muy Mor Mbaye ndax nag waa CNG daal démb ñoom ñoo ani la nga xam ne moo di làmb ja mu waroon tëgg yëglikaay bi yi nga xam ne moo di les arènes ñëw na ci lu mel ni ki noonu waaye daa mel ni ki daal li ñu seetlu ci li nga xam ne nii moo di ay recours yu duggoon rawatina ci ko côté Fass moom soo bëggee dégg dëgg moom maanaam ña leen doon réclamer ca CNG ba yépp dañoo mujj am ndam ci seen kaw yëglikaay yi ñoo xëy tey wax na ko bu dee Colifay numéro 2 la digganteem ak bu Fass yi seen seen nañ Colifay yaa am ndam ndax général balaa mu laa xëcc nga yegg si fekk na fesam tegu na ca suuf bu baax bu yàgg yàgg keneen koo xam ne ni tamit Fass la ne ñu bëre woon ak ka nga xam ne ni moom moo di Calcio muy parisien amoon ndam par décision médicale moom itam daa mel ni kombaam da ko mujj ñàkk ca la nga xam ne ni moom moo di ab recours boo xam ne dugaloon nañ ko fa nga xam ne moo di ca seen seeba mu mel ni kon daal waa Fass seen recours ya nga xam ne amee woon nañ ko yëpp yëpp daal ñàkk nañu ko kon daal loolu mooy li nga xam ne ni moo fi di konte ci yëglikaay Euh, Babacar sunu làmb daal di ñëw ak ñun jeudi 15 juillet 2021 daal di ñëw ak ñun ci xëtam bu njëkkam combat bi nga xamante ni moo doon dox diggante Balla Gaye ak yi nga xamante moo di euh, Bombardier les armes de Balla pour vaincre les cinq armes de Balla pour vaincre. juróomi armes yoo xam ne yor na ko pour gagner combat. Mhm. juróomi arme defe naa ko waxee nag kon yaakaar nan tànn arme bu ci nekk mhm. yëglikaay bi indil nañ ko mhm. arme bi ci njëkk ban la mooy euh, l'as de la lutte pure waaw bëre pure moom am na ko waaw bëre pure

waaw face à face tamit tàmm na di ko diriger. Mhm. waaw combat yi muy bëree moom. Mhm. souvent moo koy diriger. yi mhm. ñu gis yëpp presque moom mooy dakki lancé hostilité yi maanaam muy njëkk jëm ci adversaire am. loolu tamit arme la ci moom te loolu tamit souvent dana lay dimbali ci combat. quatrième arme bi il est mystique. loolu tamit am na mystique moom it xam nga doomu kaasa sera yaa ngi dégg te defe naa itam mënoo dëkk ma ba pare ah te ñu ci profité nuyu waa Casamance yëpp kon ça veut dire Euh, mystique tamit bokk na ci ay mbiram. Mhm. arme la ci moom. cinquième arme bi il draine des foules. waaw euh, xam naa ne mbër bi gën a populaire. boo mhm. leen doon tànn tey ci Sénégal. Mhm. ci côté mbooloo. ah moom Balla Gaye 2. Siteu. Ama Baldé. Modou ah, des na yeneen ak waaye ñoom quatre yi moom xam naa ne. ah bu keroogee eh, bu vote amoon dina garaaw de parce que ñoom ñoom ñi ma ku ci jóg mhm. ful bi lay topp bari na bari na trop Balla nag mhm. wax dëgg yàlla mbër la boo xam ne code de popularité foo ko takk weesu na ko loolu moom ki nga xam ki nga xamante ni moom la war a janool euh, maanaam mu di Bombardier 30 marabout assure la victoire à Bombardier Balla Gaye doit-il déjà faire des soucis maanaam war na moom ay jay xalaat. waaw 30 victoire yi nga xam 30 marabout yi nga xam ne assuré ñaan moom li ma la wax li ma lay wax rek abdu mooy àddina moom daa am lu ko yàlla tëralee mm-hmm. maanaam nit ñi tollowuñu mm-hmm. ay maqaama mm-hmm. tollowuñu ay am am tollowuñu lu ñuy dundee loolu nag sunu borom la neex ndax yàlla am na ay doj jaamam yoo xam ne tey ñu mel ni man lañu lu ñu ko dagaan mu defal leen ko dëgg la ah bu fekkente nag kon defe naa ne ñaan lu la. Mhm. mu am 30 marabu. plus moom bombardier. waaw aw fitam aw fitam plus entraînement plus mhm. dooleem. Mhm. plus mën a bëre plus xam làmba mi tam. defe naa kon kooku day neex a ñaanal. waaye ki nga xam ne daal ma ne su ko ñaan ci bis bu mu ndam ci kaw Balla Gaye de. <laughs> mooy mooy mooy yow. <laughs> Ah, xam nga ne mënu bëri. <laughs> waaw loolu dëgg la de su ma ko mënee te mën naa ko commenter waaye xam naa ne bu ci action desee. mënuma def action def action bu wala bu la Balla jàppee say mbokk jóg waaw voilà kon <laughs> du neex a ñaanal a dina neex a ñaanal <laughs> waaw ki nga xamante ni moo di Badara préparateur mystique de Sa Thiès nee na moom ci yàlla lañ yaakaar waaw yaakaar ko de moo gën a wóor azza wa jalla mooy mhm. borom lépp mooy mhm. borom kun fa yàkkoon mhm. moo yor ñëpp defe naa itam tey képp koo gis muy dox ak lu mu la man a wax bu caaxaan jeexee yàlla kese ca lay dellu parce que mbir yëpp moo ko yor ndax kuñ fi mën di maqam bu dooma da mën a am ak doole joo man a am ak daraja bu mën a doon jàppal ne lépp suñu borom la yaa ngi dégg ñuy dem si ñoom di leen dëkk ay loxo di leen ñu ñuy ñaanal ñu leen di yaakaar ah ñun tamit yàlla rek lañu yaakaar moom la ñuy ñaan mhm. waaye nag dafa fekk ka ni yàlla ci moom ci dooleem jooju màqaamam moomu mooy fekk Abdou Saliou mu def ci moom loo xam ne mhm. lu ko Abdou Saliou dagaan mhm. mu defal ko ko dëgg la Babacar ay dégg ndax yàlla mbiram yi yooru ko ci ay loxo di ko joxe déedéet dafa am fu mu ko jaaral si doomu aadama yi dëgg la Babacar ki nga xamante ni moo di Papa Sow daal ñu daal di ñëw ak ñu daal di sunu lam daal di ñëw ak ñun ci bu njëkkam les trois défis qui attend Papa Sow ci combat bi nga xamante ni moom moroon Dione ak Sina ak Siteu ñetti défi ñetti ñetti défi yi koy xaar mhm. ñetti défi yi moom bokk na ci mhm. ah réussir defe naa bi ci njëkk mooy réussir réussir son génnam bu njëkk génnam bu njëkk ak écrit bu bees mhm. muy jàmbaar wrestling academy mhm. muy combat boo xam ne ah, bu ci muy écrit boo xam ne bu bees la mu sanc ko yàggul mhm. kon buy génn defe naa ne ndam ndam moo ko ca war a ah, fekk moo ko ca war a fekk wala itam dinañ ko ca xaar bu baax a baax renouer la victoire huit ans après waaw ba tey am ndam dina juróom-ñett yoo xam ne huit ans yoo xam ne toog na ko amul ndam amul ndam papa ku ne xam ne ne ah gëj na am victoire ci lu yàgg yàgg yàgg def naa ko kon jéem a jógaat ak victoire tamit lu am solo lay doon ci mhm. vaincre la malédiction du départ de Fass waaw ba tey itam malédiction ba ak vaincre loolu yëpp daal bu ñu ko dajalee mooy mhm. ndam rek ci combat bi mhm. moo koy jig parce que génn ba Fass ku ne xam na ne nekkul génn boo xam ne ni ñu doon xaare tàqalikoo ci yenn ci ci ci dal gi mhm. ci yooyu ak ak waxtaan ba déggoo ci la amee noonu amewul noonu mhm. parce que ñëpp gisoon nañ ni bi mu fay génn amoon na coow lu metti lu mu juróon mhm. yaa ngi dégg wala bu fekkee dafa génn wala dañ ko dàq lu mu ci mën a doon rek amoon na coow buru ay waxante te loolu defe naa ne wax yàlla bon bu amee nag tey defe naa ne loolu buy dem ci làmb dina ko yóbbaale waaw ki nga xamante ni moo di Modou Lo combat dañ ko cité ci ñaari combat yëpp maanaam diggante Balla Gaye ak Bombardier diggante Siteu ak Papa Sow pourquoi Modou Lo cité dans les deux combats. bi ci jëkk mooy bu dee Balla Bombardier la tax ñu dégg ci aw turam. Mhm. ndax de xam nga dégguñu Modou ba tey mu wax. Mhm. bi ci benn bi daal bi ma bu njëkk combat bi muy Balla Bombardier. Mhm. Balla laa dégg moom mu wax ne Modou ñi meñ taxaw wala ma liir ci journaux yi di savouré ay. roi des arènes ci côté moom loolu wax na ko moom Balla wax ko na ko waxaat ko ci li ñu leer ñun fii ci yëglikaay yi ba loolu amee tamit démb biram ñu ngi xëy na tontu ko ne ko Balla amul muudu amul jotam te muudu mooy roi yaa ngi dégg te muudu waxi bàll yooyu mënu ko ébranler loolu waxi biram ñu ngi la mhm. démb gisaat nañu loolu mhm. foofu dégg nañ fa turu muudu mhm. loolu moo ko indi bi ci des mooy diggante Siteu ak papa la ca tax lañ ci dégg tamit ci turu muudu la ko ci dugal bokk na ci muudu ak papa ñoo dëkk parcelle di ànd muudu dana ko papa waaye ku ne xam ne ne tamit dafa yàgg défendre muudu ñu di ay frère mhm. am ay relation yoo xam ne yu personnel la loolu tamit su amee combat bi demee nii waa Kër Siteu ci li nangoo ci ñoom ci micro Equivox TV mhm. di ci gis yeneen vidéo ñoom mhm. ñoo ta ñaaw taxawaayu Modou Lo pour ñoom rawatina ku mel ni Jili Seck di ko tëggal ak ñeneen ak ñeneen yooyu nag mooy ci yoo xam ne nii moo tax ñu koy ci jégg ci yooyu waaye nag ba fi ñu koy waxee nii man Babacar de dégg gu ma génn ne combat Balla ak Bombardier nii mhm. wala Siteu Papa Sow mhm. nii mhm. Disa Sel nag gis nañ ko Papa Sow ñuy entraîné loolu moom gis nañ ko loolu moo di yoon ndax sax ñoo bokk parcelle Babacar waaye ki nga xamante nii moo di Ndiaga Thiam auteur de huit combats na prêt pour pour euh, contre Youssou Ndour ak ki nga xamante ni moo di Ndiaye waa xale bu ndaw bu amee huit combats am huit victoire am na droit laaj Youssou Ndour laaj Ndiaye ndax ñooñu ay xale lañ ne moom te itam ay mbër lañ am na lu ñu def kon defe naa moom tamit mu ngi ci aw yoonaa moom jaga caa ko bàyyi xel ndax xale bu toll noonu di ñëwee noonu ku jar sóoraale la Serigne Modou dinaa daal di ñëw indil ñu ndéwénal euh, ki nga xamante ni moo di Xaddafi bu Diofior war a jàkkaarloog Rhinocéros le 28 juillet waaw Rhinocéros ak Xaddafi Rhinocéros Thiaroye 44 Xaddafi nekk ci taay mhm. ngi dégg ñoom ñoo ñu war a jàkkaarloo muy neex la ndax Xaddafi moomu doomu Diofior la duusaane mhm. te xale boo xam ne euh, benn ko la gis mu bëri arène nationale mais gërëm war mbooloo moom fa indi mhm. lu tooy waar la kon sëñ Modou Niang dina combat bu neex. dina combat bu neex combat mbooloo mu doyoo doyoo waar a koy topp moom xanaa fi. Ibou du du moom moomu nga xam ne moom mooy Doudou Sané. Doudou Sané. Hmm. les arènes daal di ñëw ak ñun ci xatam bu njëkkam ñu gis le deuxième tigre de Fass euh, Moustapha Gueye si balle perd devant Bombardier. waaw balle ne sera euh, waaw loolu la. du ñàkkee daal du ñàkkee waaw. ah bu ñàkkee moom dina métti. dina métti ci moom li tax mooy dina dina boo ma dina ko daan ñaari yoon mhm. loolu luy metti lay doon lu ñàkk revanche mhm. ba ca des mooy dafa jëm ci ay combat mook Boy Niang annoncé nañ ko fi mhm. mook Eumeu Sène annoncé nañ ko fi mook Gris Bordeaux noonu kon defe naa ne quatre combats yi mënoo ko signé première sortie bi nekk nii moom ah li ko ciy jig moom mooy ndam bu ci amee saxaan nga moom dina doy waar ci moom loolu Babacar ba xam nga ni Balla mooy ma fit waaw waaw waaw waaw loolu moom am na ñeenti avance la lekk ñeenti avance la lekk de waaw toog ah. Balla Bombardier sera bref parce que si un des lutteurs prend un coup, il sera gravement déstabilisé. Bombardier n'a rien à perdre dans ce combat. parce que loolu Tafa Gueye wax dëgg la. Mhm. combat mën na ba gaaw mën na nekk lu bref parce que li tax mooy dañuy daje loolu Tafa Gueye wax. bu mhm. yóbbu xaar ko. Mhm. xam naa ne ñoom ñaar taxaw nag mën nañoo def benn round d'observation boo xam ne. lu mat sax une minute. léegi tuur nii dégluwoon ci tuuti mais xalaatu mu mat une minute. te bu ñu foofu. dañuy daje. te buñ dajee ay loxo dina jóg. te xalaat naa suñ loxo jógee ku ci bàyyiwul sa garde ba sa kuu morom yegg si ci ñàkk sa combat wala nga jaxasoo bañ daan la. Babacar parce nekk da nga wax de naan combat bi génne woo ci dóor mu daal. waaw non du ma ko ci génne. parce que loolu mhm. que loolu mooy li am parce que mhm. dajee bu ñu xeexee kuu mën na ci dal kenn ki. Mhm. te combat bu njëkk ba lu mel noonu feeñoon na ci xeex amoon na ci yaa ngi dégg. Mhm. te kon li nañ ko ci bàyyiwaat xel. Bombardier pertu ci dara comme li Tafa Gueye wax waa du ma ne man naa pertu ci dara man naa dara parce que Bombardier am lu mu bëgg kon man mhm. du ma d'accord ci ne pertu ci dara mhm. xëy na nag buñ xoolee ci côté li mu fi mu toll tey ci làmb parce que ñu naan carrière am jeex na am na deux euh, fois euh, li nga xam ne moom mooy roi des arènes kon xay na côté boobu jiitu bàll si làmba daanoon ko kon xëy na moom itam côté boobu Tafa Gueye mën na fi wax ba tax mu ne perdul dara waaye nag ci am na beneen côté boo xam ne un sportif au niveau bu toll ni Bombardier mhm. bëgg na tey bu duggee ci bés am ca victoire te loolu la bëgg mhm. te dafa bëgg a nekk roi des arènes pour troisième fois loolu maa ko dégg si kàddu waaw loolu moom ay waxam la ki nga xamante ni moo di Boy Kayré Boy Kayré euh, cette équipe de CNG est très différente de la précédente waaw parce que ah moom moom moo wax waaye daal man xam naa seetlu def naa benn seetlu mhm. xam naa ne CNG bi fi nekk moom ah, boo saa boo wàccee yoon dañ la convoqué déglu la mhm. bu laajee sanction danañ la ko teg mhm. lu mu mën a laaj danañ la ko teg mhm. xam naa daal fi mu nekk nii moom nekkatuñ fi di yéexal ay mbir loolu moom seetlu naa ko ci seen liggéey te loolu nag li ko waral mooy a ah, c'est des jeunes Bira Sène ñoom Maysa Ndiaye ak ñi leen wër ñëpp c'est des jeunes dynamique ànd ak ay ñu boole nag ay mag mhm. defe naa ne kon tamit bu ñu leen dénkee war nañu mën a teg mbir yi ci yoon ba nga xam ne képp ku wàcc yoon rek mhm. danañ la convoqué laaj la la moo tax lii nga def nga def ko mhm. boo leen indi loolu nag lu leer wala yow nga toor ñu teg la li ñu teg ko toor après bu ko defee ëllëg parce que loolu mooy tax mbir yi normal mooy tax mbir yi normal Babacar parce que tamit làmb ji fallait organiser ko waaw ba tey ci biir xëtam mu njëkk ki nga xamante ni moo di les arènes qualifié de vainqueur général après recours waaw parce que dañu bëri woon semaine yële passé ñu ne ñu déclaré woon général comme vainqueur mhm. waaye Coulifay dafa bañoon ba tëdd ci naaj yu bëri mhm. démb rek di ngeen ko seetaan sa vidéo mhm. tontu wax am na lu mu ci wax fii ci Equivox nee na moom moo daan yaa dégg recours ba nag ba ko Bourkhane dugalee mu ménage bi mu génnee da ko jox ndam mhm. mu mel ni kon recours yooyu waa recours yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon toppee waa Fass daa mel ni ci li gis ci les arènes gis ko mhm. sunu lamb dañoo ñàkk yëpp mhm. parisien itam recours ba nga xam ne moom la ko kee doon toppee muy calzo moom mu gagné par décision médicale boo fa tamit parisien da ko perdre loolu nag yëglikaay ñoo xëy tey wax ñu ko loolu nag mooy voie de mhm. recours am na fi ubbil nañ la ko am nga menacé mhm. bu ñu la àttee lu la neexul bind recours bind recours moo gën a wóor bu ñu visé euh, visionné vidéo yi mhm. lu ci am danañ la jox li waaw billaahi waaw dèjà ñi loolu lañ loolu lañu def jërul jërul kii jërul xuloo jërul xeex vraiment ki nga xamante ni moo di Jax moo war a dem Pout incha allah ce samedi 17 juillet ci kàttanu yàlla baax notre frère Jax suñu koy nuyu di ko ziar Modou Diakhaté moom tamit lit avec frappe wane na ci boppam mais lit simple tamit bokk na ci tey ñi nga xam ne bu doon mbaar la ma ne moom mooy kenu bi actuellement li tax ma wax ko mooy mise yi mu ciy teg mhm. ak journée yi mu ciy organisé mhm. macha allah kon Diaks tamit bu waree dem pour samedi prochain ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla na ku réussir moom Mamadou joxate alias Diaks mhm. di ko xam ne daal l'américain laa ko tudde Diaks ndax itam ku man lu muy def la teg ku koy teg ci yoon <laughs> waaw waaye jaaxaanam bëri léwu ko Diaks daal bi suñu Babacar Si ki nga xamante ni moo di eh, bébé bés bi jàmbaar bu jàmbaar wrestling académique uh-huh. euh, pourquoi j'ai donné l'impression d'avoir peur à Papa Boy Djiné waaw parce que kore boo xoolee. Mhm. li tax mu ñëw ci loolu. Mhm. ñu bëri dañu foog ne dafa ragal combat bi ah. Mhm. mais làmb li ma lay wax rek bu ñu la séentoo fit. fetalal bu ñu la séentoo fetal nga fit. loolu la def kera. parce que gis na ne ah, xay na jàpp na ne bi bi ñu lewtoo muy dem ci ci di génn ne lu fattoog yooyu. à ah, papa dem na ba jàpp ne kii daf ma ragal. mu attaque attaque yoo xam ne attaque yu baaxul la. bëgg ko xeex ak moom. kut ko kut ci xeex boo xam ne tagatu ko ci cadre bu bëri. mais ci xeexu mbedd la ko teg mhm. léegi nag moo tax bi mu sànnee ay kuute waa njool la mhm. kuy waa ji moytu ko mu romb waa am wetam mhm. daan ko sonn ci sonn ci bi loolu moo lay wan ne mbër mu ci mën a doon ngay bëree bul di làmb ci biiram géew fit am na solo mais fit da koy boolee comme xel ñoom ñaan ngay mixé dëgg la pour nga xam li ngay def plus sa bëri nga xam ne boo heure dóor jotul doo dóor su heure xeex jotul leen doo xeex bu heure song jotul doo song waaye xeex yi nu mu la neexee songe nu mu la neexee mën ngaa daanu jël bu la bett te kenn loolu moo am ci diggante bébé Bismi ak papa ndax papa jël ba mu daanu bett na ko trop moo tax sa xarit bi wax na ko nee na doole ju bari day wàññi xel kooku moo di King Baba waaw wax na dëgg <laughs> doole ju bari dëgg boo ko toppee nag nga nga nga jiital ko mm-hmm. ndax di nga ko yor sax mm-hmm. te xam ne lii doole la mm-hmm. nga suukaree ko ko am xel du la jaaxal kenn du moom Baba Ndiaye boo ko boo ko toppee rek uh-huh. mu dugal la la neexul uh-huh. Baba Ndiaye maa ngi koy nuyu di koy ziar sama rapport boobu man mooy sama rapport préféré mooy sa rapport préféré waaw Baba parce que la muy wax moo sénégalais moo sénégalais waaw <laughs> sa récente victoire sur ba euh, Zal Bawal Caatu Yaraax vice Diène Kaïré et Modou Anta waaw am na si droit parce que mm-hmm. Zal Bawal la daan mm-hmm. daaw daan na fi serpent ay jël yoo xam ne ci ay seconde mhm. ñaari combat yi boo leen boole yooyu mu daan mhm. matut une minute mhm. kon day am na droit dëkk ñooñu parce que moom du maax dabante la te ko oto ba la jiitu rek ngay corné ne ko taxawal ma yéeg waaye oto bi sa ginnaaw mënoo ko mënoo ges na mënoo ko ne taxawal ma yéeg mais ki ci kanam nga naan moom ngay bës klaxon ne xaar ma ma ñëw mhm. wala nga ne ko e e nag boo ko déggee rek ka ca kanam lañu naan e kon xëy nañu dañ dañu am luñ ko jiitoo tuuti mhm. mu nekk ci aw yoon am lu muy def moo tax mu ne leen e xaar leen ma ma ñëw bëgg a bëre ak Babacar nee na lam mun ñu ko wax ba mu jeex te tuñ tudd ki nga xamante ni moo di Vox Arena dem ñu gis la nga def taxawaay bu am solo ci li nga xamante ni moo di euh, fële ca euh, face à face euh, kii open press société bi waaw waaw doon sax open press mais mu ngi nekkoon open press société moom mhm. Abdou Salim mhm. laa ilaha illallah bés bu amee boo ca demee da nga xam ne dem nga ci open press ok maa la xaw kañ la dat ba ay muy open press mhm. loolu beneen affaire la loolu dañ koy écho laay daal loo ci mën a dégg dem nañ fa uh-huh. bërki dem mu woon presse bi macha uh-huh. allah jàkkaarloo presse waxtaan ak ñoom uh-huh. c'est ñu ci nuyu waa stafam bi yëpp waa Lamsaar ñoom Cheikh Tidiane ñaa Max Mbargane Soura Malick ñoom ñëpp ku ci nekk gis nañ la wax nga waa Parcelles tamit nañ noonu noonu lañ ko defee ci ñoom bërki dem ki la ñoo àndoon ah, moo lay wan ne daal Vox Arena moom labelu làmb la mbir nag boo nee moom ci laa yëngutu da koy wane yaa ngi dégg ndax ab saay ab butéel Euh, butéel. Mhm. la lu mu def rek moom la sañ bee. moom la sañ bee xeeñ de. noonu la fa demee. Mhm. te Vox Arena pour lamb Mhm. voilà kon di leen jox dig daje mbokku téléspectateurs yi incha allah demain vendredi ci kàttanu yàlla nga xam di ñaan réew mi yàlla ci yàlla def jàmm eh, di ñaan sunu borom li nga xamante ni moo di troisième vague yàlla na sunu borom musal daal ci musal bépp mboolem julit di wax ni nag il faut laver les mains poster les parce que réew mi fi mu réew la te ñun ñoo ko mën a defar Babacar maa lay jox sa wàcc waaye di la ñaanal jàmm Abdou di la wax ne loolu mhm. Mhm. li ñu gis yokkoo c'est grave nañu gën a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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baal ku yëg da ngay ñàkk